jërë ngeen jëf mbokki internet yu Pikine Info ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di amati contentement saa su nekk di jàkkaarloo ak yéen ni ñu ko baaxoo di ko defee saa su ne rek li nga xamante ne bii ni moom la askan wi soxla moom la ñu leen di indil tey ñoo ngi fii ci rue 10 fekk si benn famille boo xamante ne bii dañoo toog ci ban wu jaaxle nekk ak njàqare loo xamante ni bii nag li ko waral du leen lu dut seen doom bu leen réer depuis samedi ba mu liggéey jee waroon a wàcc ñibbisi boobaak léegi amuñu ci moom benn nouvelle tey ñu seet si leen fas yéene waxtaan ak ñoom ngir rek ñu am ay leeral yoo xamante ni bi daañu ko indi ci mbir yi ngir képp koo xamante ni gis na xale boobu noonu rek mu daal di koy déclaré balaa ñuy eh, laa yaatal waxtaan bi dañuy nuyu ki ñuy sekkal suñu waxtaan muy lamin dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyoo ak ñiy seetaan ñu doog dugg ci waxtaan wi Lamine ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi lay delloo ziar bi. waa di la wax comme ni nga ko waxee rek ñoo ngi lay fay. di nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi seetaan Pikine info site bi yaakaar nañ ne duñ ci gan parce que bëri na luñ ciy feeñ domaine bu nekk ak luñ ci war a feeñee te yàlla def na domaine bi lañ ci war a feeñee ñu si sant yàlla parce que jaam ak pexeem yàlla ak dogalam mu nekk loo xam ne lu dal suñu kaw la ñu koy nangu nag parce que jaam bi moo nu ko teg ñu koy nangu waaw. ndax mën ngaa dikkaat ci euh, xale bi ni mu tudd moom euh, docteur la ko ñëpp xamee kañ ngeen ko gëj a gis. moom mi ngi tudd Mamadou mbay la tudd mais docteur bi turandoom ñaari ñaari surnom yëpp ci turandoo bi la jógee parce que turandoom mi ngi tudd Mamadou kan moom mu tudd Mamadou Mbaye turandoo bi ñu koy woowee docteur moom tam ñu koy woowee docteur man ak moom. presque mën naa ne bi mu bi mu xàmmali ko ma ba léegi ñoo bokk benn laal bu ñuy fanaan man ak moom. salan la sama rakk la. mooy suñu caat bu góor. mooy sunu caat bu góor sama rakk la bientôt mois de septembre lay am dix-neuf ans waaw waaw xale la moom dafa liggéey woon bu daan liggéey wax dëgg fa yàlla mook mook patron ñoo daan ànd di xëy mais bu ñuy wàcc daaw ñu ànd patron bi bi mu ko commencé jàngal métier ak léegi mat na ñetti at. ci lan lay liggéey. patron bi jàppee ko apprenti comme rakk la ko jàppee ñun lu ñuy dund nii moom loolu lay dund docteur xëy na ànd ak moom xëy. bi mu wàccee moom mu toog ba 19h bi muy julli timis moom sax yàlla def na moo ñëw ne ma parce que docteur bu wàccaan mooy rakk yoo xam ne dañoo bëri yërmande moom amaana ci rakk yooyu la bokk parce que man bu ma damay jaay kafe su may yeewu ñooy ànd des fois bu ñuy tëdd ñooy ànd wala ma njëkk ko tëdd wala mu njëkk ma tëdd mais lu mu guddi guddi guddi balaa muy tëdd bu ubbee bunt bi dinaa yeewu ba mu ne mujj gi mu ne ma yow sa nelaw du xóot de yow la moo tax saa yi ma laalee bunt bi rek nga yeewu ma ne ko ah mais day fekk du ma nelaw samedi xëy na comme ni mu daan xëyee toog nañ heure jot gisuñ ko bi patron bi ñëwee laaj ma ko ma ne ko ma ne ko docteur de wax dëgg yàlla gisuma ko ma ne kon est-ce que daa nekk sama néegu yaay parce que des fois day sonn waaj ñëw ne ñëw sama néegu yaay di nelaw. ci lañ tok samedi ba tay ji ni amuñu nouvelle am waaw depuis tay ngeen ko wo téléphone. waaw wo nañ ko téléphone. patron bi comme mom docteur dafa am ñom ñaar lu leen boole won moy daf ko warona daf ko joxone xaalis sa samedi da koy mandat kon koku jappetu ko apprendre rak la ko jappé patron bi daa ñëwoon samedi bobu pour ñew indil ko mandat wam neena da ko jox 20000 docteur war ko wecc cinq mille léegi cinq mille boobu noonu la soxla won ci la ñëw di sét docteur parce que daawul tok ba bobu heure tay ak léegi bi mu toogee bi mu ñëwee après ñu sét mom mu ñëw fi diko sét ci la né ana doc ci lako wo woo téléphone am mu sonné après avant 20h bim ko woy après mu natul sonné nak di bobu légui di ngeen ko njëkkee wo sonné na. wa patron bi moo ko woo xam man mom wa dëgg yàlla comme man man woowu ko parce que bayu ma xé sax né ñëwul parce que mom bu wàccaan ñëw bu sawaré day ñëw jappalé ma ne ma bàyyil ma jaay su ma jaayee chaque jour ba ci vendredi bi moom moo jaay bi mu wàccee plâtrier 19h moo ma jaayal ba 20h mooy ramasse bagage yi su paree mooy dugg marché jëndal ma suukar bu ma mën a jaayee ci lan demee bi mais après bi bi biñ toogee nag ba ay deux h gisuma ko ci laa xam ne muy commencé sérieux moom non boo fekk na ñu koy commencé woo mais mënuñ ko jot. téléphone wala du sonné. non non wul dafa fay. téléphone sonewul dafa fay. ñu tok ba ay 3h du matin man ak sama sœur bu jigen bi comme dérèd rek ñu tok ci mbéd mi diko xaar ba ay 3h mënuñ ko gis ñu xey biñ xey tam ay 6h fekk ñu gennat ci mbéd mi parce que doto nelaw biñ xey ñu dem brigade de recherche yi nek yi ñu xam yépp ñu dem fa déclarer biñ ñé parce que mën nañ japp né dañ ko rafal mën nañ japp né dañ ko ramasse ñu xalaat né ramasse la ñu dem brigade de recherche yi ñu xam yépp fekkuñ ko fa benn muy police muy gendarmerie fekkuñ fa turam dañoo jàppoon ne ramasse la mais biñ demee fekkuñ fa turam ñu xam ne kon ma ne ma ne bu dee ramasse la nit buñ ko ramassé dix heures dañ ko bàyyi buñ ko bàyyi dix heures quinze heures dinañ ko bàyyi ñu toog boobu ba léegi mënuñ gisuñ ko nag waaw. boobaak léegi euh, booba léegi gisoo leen ko demoon ngeen euh, police ak brigade yi ngeen xam yëpp ndax ñoom tamit boobaak léegi am na leen luñ leen indil. waaw parce que li ci am solo mooy moom turandoom colonel la lépp lu ci war ci enquête wax dëgg ak yàlla mi ngi ko ciy def mais amaana comme li ma waxoon nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam xam naa ne mois bi dafa nekk sunu mois du moo xam ne nattu la ñu ci sant yàlla parce que sama yaay démb la tànkam am 15 jours bi mu damoo wallaahi tànk càmmoñam moo damm àllarba démb la am 15 jours tey la alxamis docteur sama yaay tànkam dafa damm àllarba. beneen àllarba bi del si samedi docteur réer kon dañ ciy sant yàlla parce que yàlla mooy buur lépp lu mu teg ci jaam rek dañuy xam ne lii moom moo ko teg si jaam ñu ngi ciy sant nag bu ñëwaatee suñu loxo dinañ xam ne ñëwaat na suñuy loxo ñu ciy sant yàlla luñ ci mënti amit dinañ sant yàlla mais yaakaar nañ ne mu ngi si jàmm mooy fi mu nekk pexee ko gu mënoo génnee mu ñibbisi pexe boobu yàlla na ko yàlla may ak kàttan boobu ba mu mën a ñibbisiwaat parce que rakk la suñ rakk la wax dëgg fa yàlla rakk bu bëri yërmande la 14000 lañ koy jox par semaine saay bu ñëwee semaine bi wallaahi billaahi wallaahi sama bàmmeel laa tiim bu toogee ñaari semaine dina yëkkati 5000 ne ma am bu luyaas ñëwee na nga fay parce que damay fay chaque mois luyaas 25000 day génnee 5000 kuñ fay 14000 mille lay ci lay passe retour am ci la war ci la war a reer amaana parce que añ mën na ne seen sànce mën nañ koy jox añ wala dara mais loolu muy dese mu bëri mu néew te man ak moom dañuy waxtaan mooy mu nekk rakk woo xam ne ku ne bëgg na ko rakkoo parce que rakk bu bëri yërmande la ci loolu lay ñëw am lu ma la ci laaj gannaaw ba rakk bu am yërmande la ci yow te ni nga waxee suñu ko déggee euh, muy mel ni ay complice ngeen yéen ñaar euh, yàgg ngeen di fanaan ndax ci semaine boobu noonu nga xamante ni bii moom la fi mujjee dem liggéey wàccul gis nga mu def lenn loo xamante ni bi lu étrange la lu la jaaxal ci moom la yu ni mel non amul wallaahi amul billaahi wallaahi jàmbatul feebar jàmbatul feebar mooy jàmbatul man maa mën naa la woon réveil bi chaque jour cinq heures et demi laa koy réglé su ñëwee bu yeewoo parce que des fois téléphone am comme da koy def silence te mën nay nelaw te fi mu sonn du ko kii dama koy yee bu yee bu ma ko yeewee day ñëw fëggaat sama yaay pour mu jox ko benn mbaaj chaise bi ñuy toog nii fii lay tëddaat. ba ay 6 heures 7 heures mu jóg préparé pour pour liggéey. ndax amul tamit ñenn ñoo xamante ni bii nii jote na ak ñoom comme entre ay xaritam wala ñenn ñoo xam ne mës na am ak ñoom problème ñoom wax la ko wala yu mel noonu. non wax dëgg fa yàlla ku dee rek ak sa bàmmeel sama yaay boo ñëwoon ne ko man maay xeex du la wedd moo soo ñëwee ne ko docteur mooy xeex du la gëm. parce que xamee ko ko. billaahi wallaahi soo gisee ba ci photom yi nga xam ne moo nekk ci internet bi yëpp soo gisee reetaan ay ay photom reetaan sax moo ciy génn sama yaay moom boo ñëwee ko Lamine Koor mooy xeex moom da lay gëm mais soo ñëwee ne ko docteur moo doon jàppante wala docteur mooy xeex bi du la sax gëm wala nga naa ko mag lay jàppante wala dara mais nag comme xale dina xeex débat moroomu xale mag yooyu mais soo ko àttee sax da xam ne kii bëriwul eh, histoire da koy àttee muy reetaan wala dara. Euh, lu metti la mu dal leen ñoom ñi nga xamante ni bi euh, seen rakk moo demoon liggéey samedi ba tey ji di jeudi euh, gisuñu ko xamuñu ci lu mu nekk ñu ngi koy woo ñu ngi dem fu nekk ñu ñaan képp koo xamante ni bi gis nga ko boo ko xàmmewee ci photo bi nga xam ne moom la ñuy affiché ci kanamu écran bi nga daal di def signal nga woote fii ci numéro yi nga xamante ni bii nii moom la ñuy bàyyi ci photo bi moom lañu ñu montage ci image bi Lamine ba tey rek ñu ñu ñu woyal laaj parce que lii dafa nekk cas boo xam ne dafa xaw a délicat parce que ku dem liggéey war a wàcc ñibbisi gisoo leen ko mu yoroon weccit bu mu waroon a indil patron wam ngeen koy woo ba sonn jotoo leen ko boobaak léegi ci seet yi ngeen koy seet ndax boole ngeen ci di di di di seet ci maama ni parce que tamit am na ci ñoo xamante ni bii yàlla may na leen bu nit réeree mën nañ la ni ne mu ngi ci jàmm wala mu ngi ci lii wala mu ngi ci leneen. xam nga site boobu su may wax sax ci site bi ñu bëri daan nañ ma gis may génn di def genre genre sorte yooyu. kon tay ni ci ëpp di la wax dañ nan la mi ngi si moy amana fi mu nek dafa mënalul la génnal bopam ki Pikini Info ñom xam nañ docteur moy nekul nit ko xamne ne ku am force la wala dara. manam ci gattal dal da ngeen japp ni ay nit ñoko japp no docteur xam nga nit da ngay wax sa tray bammel ñaar mo am moy docteur bu gëlëmoon ñuy ñaan yalla mu ginnali ku nek ak xelam. docteur bu nekkoon ak xelam 30 secondes ñun ñi mu bokkal kenn ku ci nekk këru na numéro am ba ci numéro ñaari patron yi kay jàngal métier mooy même maanaam jàpp na huit numéro yoo xam ne mën na ko génnee mu bañ a tiim téléphone. mu composé ko kon dañ naan bu nekkee ak xelam dafa gëlëm nekkul ci loxo kenn kon yàlla na ko yàlla dindil gëlëm bi. bu fekkee dafa nekk ci ay loxo ñu téye ko fa yàlla na ko yàlla may kàttan bu mu génnee foofu ñaar yi benn moo ci am wala wala wala wa ilaa bu fekkee mi ngi dund ak bakkanam parce que jaam ak pexeem yàlla ak dogalam dañuy waaw kii jooy noonu sama rak la mais ay jaamu yàlla lan mooy te gëm nañ ne man docteur demam benn heure la may mett mooy heure lekk bu ma tiimee lekk war a lekk ci lay mett ci man mais bu weesoo loolu lekk lu mu may saf bariwul ndax xam naa ne man parce que deret moo foor ñoo bokk benn deret bokk benn lal bu ñuy tëdd te yàlla mi am kàttan te am pexe. xale buy jaamu yàlla la wallaahi xale buy jaamu yàlla la bim ayee daayira ak léegi matul 40 jours daayira Seydi Jamil la bokk bim ayee daayira ak léegi matul 40 jours wallaahi matul 40 jours. Euh, waaw metti metti tànk bu damm mais yaay ju gëm yàlla lañ am nag. billaahi wallaahi wa taala yaay bu gëm yàlla parce que yaay bu yeew cinq di du matin di jàppale ay njabootam tey amaana yàlla dafa xam ne dafa àttan natt bi moo tax mu teg ko su ko tegee ba pare mu nangu ko nag mooy ñun ñëpp sama yaay moo ñuy defal kenn ku ci ne wallaahi sama yaay moo ñuy defal ñun ñëpp ku ci bëgg a saalit rek moo naan la lii ngay def. xanaa gëmoo yàlla xanaa gëmoo lii ñu bokki famille bu gëm yàlla nag mooy nattu moom ku nekk ak jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. message ngay la ban lancé population bi. waaw message bi ñuy lancé mooy docteur frère la te wéetuñ ci xeex bi nag ñu ngi ciy sant ñi siy jàpp ñëpp ñëpp ñëpp démb Père Mbaye Ngoone xamuñu musul gis kenn. mais démb def na bi ñuy def seen émission te c'est la première fois ma gis ko mu def communication bu mel noonu génnee na photo am publier ko ñu ngi ko ci sant di ko gërëm ak képp koo xam ne yaa ngi koy dugal ci groupe boo xam ne xamoo ñu ñun mosuñ laa gis ñu ngi sant ñëpp mais liñ ciy wax di ko ñaan mooy yàlla mi nga xam ne moo am te moo mën lépp lu waay def rek moom la neex mu antu moo ñu ngi koy ñaan mu indil ñu suñu rakk bi tegaat ko suñuy loxo loolu rek la ñuy ñaan yàlla te yàlla. nga joxe waale tamit numéro téléphone yi nga xamante ni bii bu fekkee ni am na ñoo xamante ni gis nañu ko moom la ñuy wootee. waa ku ko gis da ngay woote 77 783 86 10 wala nga woote 78 170 94 18 loolu sama numéro la ak sama numéro sœur ñun boo gisee lu tax amaana dañuy sant yàlla quoi dañuy sant yàlla parce que famille bëri bari nañ mais ah, ah, ah, amaana ñun li ñu yàlla may ñu ngi si sant yàlla yàlla boole ñoog yaay boo xam ne nag billaahi wallaahi wa taala yaay bu mun a muñ parce que natt bi teg ci kawam rek mu accepté lépp mooy sa tànk damm sa caat bu góor nga toog ba tey la alxamis ba tey gisoo ko mais teewul mu saalit wallaahi duma dugg ba musumaa gis rongoñam billaahi bi lii amee ma ba léegi barke alxuraanu karim dugguma benn yoon ma gis sama yaay rongoñam muy daal dënnam kon dañ ciy sant yàlla yàlla mi nga xam ne moom moom docteur foo nekk ci ci deret bi daaw ci yaw di daaw ci ñun seede yàlla ñu ngi lay ñaan nga ñibbisi billaahi wallaahi wa taalaahi yàlla na la yàlla indiwaat suñuy loxo te gëm nañ ne incha allahu rabbi yàlla dina la indiwaat suñuy loxo loolu léegi lañ ci am ñu ngi wax nag message sénégalais yëpp ñu ñaanal ñu fi ñu toll nii ñaan rek lañ soxla jërëjëf. jeune ngeen mbokk yi internet yi deg ngeen kàddu yi nga xamanteni bi mom la yëkkati leral ko ci rakam ji nga xamni mom mo moo leen réer mu ngi def tay 5 xaw japp 6 jours képp ko xamanteni bi rek di nga ko xamé ci photo bi ñuy euh, tax def ci kanamu écran bi nga woté ci numéro téléphone yi nga xamni joxé nañu ko fi aussi mu ngi ci photo bi ñu monté ko ci nga woté ci rek jàppale leen ndaxte nak jaxlé nañu bu baaxa baaxa bu baag légui yend lu ñu fanaana lu ñu ñu ngi wër fu nekk fu ñu xam ñu ngi fay dem ngir gis seen rak bobu lé ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax dig daje lañ di jox beneen yoon yeneen i émission fii ci Pikine Info di leen jaajëfal bu baax a baax